xëy na après laay laay dina ñëw ci ligne bi mu gën koo leeral l'essentiel li ma ci ñor na mooy gis naa ni yaay ji ndaanaan la baayam aussi ndaanaan la rawatina ay maamam ak ay maamaatam fi ñu jóge yëpp danay champion nag ñu bëgg a gën a yokk seen élevage gën koo amélioré moo waroon ñu dugg ci bi nga xam ne si daal vraiment mooy jeune mâle bi mu fekk si commissaire doon doon rakkam ci gétt gi mooy du doomu layla ak misne macha allah vraiment ñu bëgg a liggéey liggéey bu mucc ayib ci élevage. macha allah xëy na ko ah, mhm. tey moom dama gis ngeen dend box. moom da nga ko avant wala fii nga ko gisee. non kii bi mu amee euh, un mois laa ko jënd. Uh-huh. waaw un mois laa ko jënd ma bàyyi ko fa muy naan donc bi ma ko jëndee pare sax moom soo ñëwee bu nekk jaar raxas pour recruter ko ndax euh, nam meloon ci bergerie bi bu daan génn soxal bi day sedd ndax ni muy taxaw daal vraiment taxawaayu Sonko dëgg lay taxaw xam nga rek ah, <laughs> waaw mais booy ak seen baax bi mu juddoo ñoo ne ma lu mu deedee moom da nga jël commissaire bi foo ko jël ñu ah. màggal pare ma dem ci laa ko jëlee waaw xaadim Euh, bàcc bàcc loo noo gisee tey euh, tey transfert bi nga xam ni xar bi jaay ko depuis lors ñu ñëw defee foire antenne bi fii far yàlla yaag béy seen lagan ngeen den box nga war a def transfert bi euh, kii nga xam ne mooy commissaire nga war a def transfert tey moom mooy kan ak. waaw am contentement rek parce que vraiment chaque jour contentement lay am di jox Pam Ndiaye sama xarit sama frère xar yi ñu vraiment mu nit bu baax yàlla boolewuñu kon su ñëwee sama kër loo xamante ni lu baax la. waaw damay sawar jox ko te li ma ko jox nii dama am ci moom yaakaar fii laa koy waxee incha allah ren ji déwén dana ñëw taxawaat fii concours incha allah incha nag laa la wax bu si yàlla àndee incha allah kii xar bi dana yëg podium bu neexee yàlla dina def saami parce que li ko composé dama koo xam yaayam mi ngi ne le sans fixer ñaari doomu seex Anta laa jël boole ko ko xam Cheikh Anta ci wax dayoo am na ko mooy borom corne bu noir borom collier bu rouge ah, bi waaw waaw laal na lamp fils ah. laal na Cheikh Anta ah. laal na ado bi hmm. parce que boo xoolee li ñuy Cheikh Anta bi foofu la mu ñëwaat tra euh, ndukkumaa ñëw traversé ko mu amaat foofu ado bi amaat foofu euh, kii bi nga waxate euh, am am fi Ablaye Ñaa bi am fi forman bi yëpp kon daal li may wax rek hmm. moom gën ko teg loxo gën koo gën koo defal. xam ne champion la incha allah ni moo ko waxee sànq rek day ñëw pour résoudre élevage Touba. Touba macha allah te ah, noo gisee tey euh, kii di dem seen euh, champion bi ak euh, moom mën a wax ci moom. waaw ah, salaamaaleykum mbokki éleveurs yi asalaamaaleykum mbokki sama gaal ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay waaw ah, di def fii transfert bi nga xamante ne mën naa ne këram la jógee dugg këram parce que mi ngi jógee Bergerie Sopp Xaadim nekk Dakar. Euh, jëm bergerie Lagane war a fas yéene dugg Touba donc Pape Ndiaye nekk suñu lépp mu ne na xar bi këram la këram lay duggaat waaw ñu joxe ko ak yéen aussi parce que depuis suñu liggéey ba léegi ñu ngi si quatrième génération mais xar bi yàlla dafa def mu nekk suñu troisième génération liggéey donc li nekkoon logique mooy ñu tey ko liggéeyee si parce que dañoo jël doomu lamfis bu jigéen boole ko ak Carvajal Carvajal nekk doomu Cheikh Anta yaay Carvajal nekk doomu doomu doomu sëtu Bachir doomu Medzo ku ko xool xam ne foofu dafa laalaat bi Euh, ñu jël Biridel bi nga xamante ne doomu Carvajal la boolewaat ko ak beneen doomu Carvajal boo xamante ne yaayam doomu magistrat la doomu magistrat boobu yaayam doomu nation la ah doomu magistrat boobu no moo taaloo rajab bu Cheikh Mbacke Lo bi moomoo Ramadan léegi ñu jël ñaar doomu Carvajal yooyu boole leen mu jur kii nii mu jur Nova jël Nova tekk si ndukumaan mu jur ko moom mi mu nekk suñu xar xar bu ñu amoon yaakaar vraiment te aussi bi ñu ko joxee aussi yéene nañ ko joxee parce que bi ñu jëlee juddulee ay xar ba léegi mosuñoo juddulee moto bu mel nii donc xam nga rek fi mu ne nii moom partage la te Touba daanaka macha allah dañoo am nañ ay famille yu baax mais seen waaw mais côté waaw loolu mooy logique parce que soo xoolee waa waa dañoo soxla maal te kii gëm naa ne lépp lu fi addoo def si Touba dina def lu ko raw te tey soo xoolee li ñu bu mu laal ñooy continuité parce que seen Moustapha Mbacké dafa yoroon benn doomu. format bi ñu benn doomu format ba ñuy wax xawsu depuis 2017 ba léegi ñoom ñooy nekk di lañu si podium yi ba maal bi gën a démb surtout format la te kii dafa laal format lâché ànd donc def ñaan di ñaan yàlla mu barkeel rek te Pape Ndiaye am si lu kawe njootam incha allahu rabi. abo noo gisee mbir mi. waaw ah, asalaamaaleykum. sama gaal TV waa li ñu mooy mooy kenn du en mais kenn du commissaire. Mm-hmm. ah rafet lu transfer bi mën nañ ne fii transfert diggante ñaar ñi transfert amu ci. parce que bàcc ak paap benn lañ. duñ joxantee xar. dañuy ñaan yàlla mu def ci barke. ndax bergerie yi benn la. Ah, ndax yaakaar naa Layla bi nga xam ne. moo gën a euh, pourfait ci bergerie Pam Ndiaye. bàcc ko joxoon te ba mu koy jox it coow li bari na trop. Mm. à la boo ñëwee fii. Mm. boo xoolee ay doom ñoo gën a pourfait ci bergerie yi Lagan. kon loolu xol la ay nit buñ bëggantee. ànd doon benn li ñuy jëflante loolu daf ciy suyee dafa am solo lool loolu éleveurs ñu bàyyi ko xel élevage partage la euh, joxe bi hmm. joxe bi ma gis nii yëg-yëg la hmm. parce que xar bi hmm. bu toon yëg-yëg man xam naa Pam Ndiaye du jënd xar bi <laughs> Pam moom bu toon yëg-yëg du tante mbote ah. kenn mënta tax man maa ngi doog a gis Pam Ndiaye jënd mbëte mu góor kon nag loolu gëm-gëm bu mu am ci bàcc la looloo tax ma wax ko Pam Ndiaye maa ngi doog a gis la première fois mu jënd mbëte mu góor jënd na xar bu ne mais mbëte un man foofu laa defee jàngat uh-huh. ci laay xam ne ñoom seen diggante sincère na te Pape du dof te lii ku ne xam na ne xar bii uh-huh. comme li bàcc wax dañ koy confirmer bés bu amee ay loxo uh-huh. fu xar dem dina fa dem am nañ ci yaakaar parce que bergerie bi euh, dara lañ fi lu ci bari Pape dañ ciy waxtaan bi ma wanee xar bi moom gis-gis bi mu amoon rek bàcc gis ko man loolu laa gis xam naa ne bu ñëwee ak famille yi nga xam ne liggéey na ko ba pare ci entre Sayer ak Meslin ak euh, Macky Sall bu ñëwee xar bi war naa mën a ñëw yéeg leen te bu leen traversé euh, bu leen traversé élevage Touba dinañ daw topp ci seen ginnaaw parce que maa ngi dégg Jibi Ndiaye di wax ne élevage Touba dañu am euh, dañu am maal mais élevage ñoo am problème mu maal pour l'instant élevage moo am problème mu maal loolu nañ ko bàyyi xel loolu du Touba rek bàyyi xel ne élevage Sénégal ñoo am problème mu maal kon nak li ku ko jënd nañ ko ñaanal yalla suñ borom bayiko fi ba mu mëna satisfaire éleveurs yi té am nañ ci yaakar nak yalla bu ci ca dugg barke borom tuba kon mok sama gal ki dama ko dugg sama espoir euh, jibi ñëwul Jibi Ndiaye Jibi Ndiaye ngoog Jibi ñay nga xamni mom man dama naan Jibi ñay expert la man expert la ko tuddee ñaar expert bo xam ci Jibi ñay do gisee transfert bi nga xamni beuse béy si sopp xaalis yow liggéey bu am solo nga fay def euh ki ni commissaire waaw commissaire transfert mu mën ci wax moy

Assane 2 ak Jannatu Jannatu bu Fadilou Keita macha kon yaayu Ndoukoumane fixé Assane 2 la doon femelle boo xam ne mooy meilleure femelle bi nga xam te moo nekk bergerie Jabel Touré moo fa prouvé comprendre léegi si lañ jëlee Ndoukoumane boobu te ko ci yaayu yaayu jeune mâle nga xam ne Nova pur produit bàcc ndaw la waaw ndax Bathie Ndao moo juddu yaay Nova juddu yaayu Nova. macha allah comprendre nga nga moom dafa travaillé ci. ci bi. Mm. temps travaillé ci lamphisme. macha allah kii lépp lu ko sekk rek lumière ak macération. boo xoolee xar bi catu wee bi ba ci catu bopp bi gisoo ci lépp leer la muy Assane bi xaru lumière bi Cheikh Anta bi yaa ma gënoonoo. léegi fi mu nekk li ñu naan li gars yi di wax dafa am bu bees bu xew muy lignée oncle Ben bi. Ah. nga xam ne moom maam direct la. léegi oncle Ben fi ne nii moom moo jur papaam. muy Ndoukouma mu mu nekk nekk xar boo xam ne xar bu la aussi. nekk yàlla euh, damay ñëw si waat Touba. incha allah Bergerie xool ko. d' accord Bergerie Lagane fan la nekk ak numéro bi. muy Touba Darou Sane euh, marché dégg ba. 77 téléphone bi 77 549 98 36. macha allah en face kër yi si jonn sama doomu day sama xarit. jox ma teere bu yaatu loolu ni ma sàmm. kenn du moom yàlla ak sama bergerie euh, Sopp Xaadim moom nekk. Euh, Kaas ba Dakar. Dakar Cambérène. Hmm. da ngay ñëw ba Kaas ba. Hmm. après boo ñëwee boo duñ la envoyé suñu localisation nga ñëw Kaas ba Cambérène rek la ñëw. numéro 77 965 32 32. mooy mooy numéro WhatsApp. Euh, en même temps mën nga ñu jotee si 76 190 90 42. macha allah ñaareel ñoo suñu numéro bergerie. kon euh, transfert ba nga bokk sama gaal. mu duggaale sama espoir ñu war ko seet si waat dans 6 mois fii Touba.